ñuy man di am ñaari milliards par at ba par weer man di am ñaar fukki milliards ak ñeent par at loolu bi ñu ko tàmbalee léegi wax naa ko léegi ñoo ngi ci ñeenteelu at bi fiñ ci toll boo ko doon xayma mooy téeméer bu ñuy wut bu nekk ñoo ngi toll ci diggante juróom-ñaar ak juróom-benn ak genn wàll 6 virgule cinq pour cent jàpp 7 pour cent foofu lañ toll ci li ñuy wut. kon ñuy wax ne liggéey bi biñ ko wootee dañoo seet ne mbedd yi nawet bi. màggal gi mi ci biir nawet bi màggal gi mooy ndaje mi ëpp solo ci Afrique de l'Ouest wala ci àdduna bi sax bu la neexee gannaaw Arabie Saoudite Makka te màggal gi bu ñëwee xat-xat lay doon ak jafe-jafe daaw ñu tàmbali ko def ci liggéey yu ama am solo biñ ko defee ren jii nañu ne nañ ci teel a tàmbalee jublu ànd ak borom xam-xam yi ñu wàcc dem ci dëkk bi xool saytu jàngat daal di xayma ne ci xayma bu ñu amee 350 millions xayma. jëm koon natte ci tolluwaay bi ñu amoon waaye nag mu mel na dañ cee sóoraale woon ne danañ ami jaayante ñu ne kon nañ ca tàmbalee bi ñu wootee jaayante bii ci ndigalul sëriñ bi gis nañ ne liñ ci doon wut faw xanaa romb na loolu nag day joxe tegtal ci ne liggéey buñ tàmbali la waaye du yamati ci nañ ko xalaatee woon ndax bu yokkoo dañuy yokk ci biir loolu nag kon ci la ñuy wooyee bépp borom xam-xam bépp borom xam-xam borom xam-xam yi dañuy faral di wax ne liggéey yu mel nii ku koy tàmbali da war a def ay études préliminaires jaarale ko fépp balaa ngay tàmbali